gëm suñu bopp gëm suñu médecine gëm plante gëm yàlla je suis ñi nga xamante ne rek dañu am benn faiblesse lu leen tubaab bi jàngalul xamuñu ko ba pare suñu jàngee ci tubaab bi naan ñun li ñu xam c'est vide et nul ñàkk xam sa bopp ak ñàkk gëm sa bopp weesul loolu lu tubaab di séeréer rek nga ne loolu moo am gëm leen téye gëma bopp cest à ñoom daal ñooy créer ñun on est capable de ne de ne rien créer <laughs> ils ils s'appellent eux ñuy tuddee seen bopp des intellectuels parenthèse la nag bu dee lu ne rek il faut la France xam naa ne moom dinañu dee ci ginnaaw ginnaaw rek la des je te un exemple les vingt Afri les vingt plus riches. doo ci gis benn francophone. ay lusophone ay anglophone. même les pays ah. moo tax Gabon génn francophonie allié léegi ci anglophonie et je me demande qu'est-ce que le Sénégal attend ça c'était une parenthèse city bi. Mm -hmm. mooy bàyyi feebar parce que siti mooy indi arthrose arthrose mooy yukk yu wow tubaab mu ne ko faj. yukk mooy liquide bu gluant boobu ngay gis ci yax yi. acide citrique fluidité bi déedéet. du acide citrique. Mhm. acide citrique ci salive bi lay génne nga dugal ci biir. boo tojee yax doo gis mbu euh, tubaab na ko naan mbu. olof di ko naan yukk. Mhm. liquide boobu liquide boobu mooy permettre <laughs> mouvement yi ñoom li ñu mën mooy injecté wala opère ñu defal la ci caoutchouc ñun dañ koy faj en trois fois quatre semaines ah parce que ci siti bi lañuy njëkkee ñoom xamuñu siti moo tax mu ñuy faj arthrose mënuñu faj polyarthrite rhumatoïde parce que siti moo koy indi mooy mm-hmm. rhumatisme bi nga am ba sa yax yi déformé mm-hmm. mënuñu ko ñu ñu koy faj minimum en quatre fois quatre semaine ou am na ñoo xamante ne dañuy faju ba dix mois mm-hmm. am na ñoo xamante ne minimum quatre mois mu jeex mënuñu faj azoospermie mooy maniw bu manqué ay ferñeent ci séddi moo indi xamuñu ko ñoom mënuñu faj asténose spermie mooy maniou boo xam ne dafa tayal parce que siti moo koy indi mënuñu faj nécrose spermie siti moo koy indi mënuñu faj stérilité jigéen bu mënul am doom wala góor bu mënul am doom est-ce que xam nga siti boo ko amee bu dee jigéen nga say règle lay bloqué kenn du faj règle bloqué jaaral ci siti man bokk am naa garabu règle bloqué quarante mille lay jar pourtant city bi trente mille lay jar mais boo ñëwee trente mille bi laay encaissé. mais siti ak stress def mel ni. même même bokkul même effet yi la ñuy def. bokkul sur l'organisme non non non bokkul city ci deret la nekk. stress c'est psychologique. psychologique. city la germe la buy daw ci biir deret. mais impact bu muy def ci organisme. Ah, moom lay expliqué nii. d'accord. même ñii di ëmb ëmb di tuuru mhm. ñi dem ci ñenn fenkat yi leen naan ay rab la ay nangam c'est pas ça siti moo koy def mhm. j'assume ce que j'ai dit comme nit ñi dañ leen ragal parce que dañuy napp nit ñi fekk xamuñu dara toju ñu fenn sëñ bu mën dara du génn télé du génn YouTube wirdu sa wird rek nit ñi fekk si lu gën a neex ci communication mooy buzz de communication nga def résultat buzz bi loolu mooy am importance mais mbele mbele mbele mbele mbele rek di faje ay rab di filmer di fekk yëpp ay cinéma la ay montage rek ñun dañuy faj rab en trois semaines te coow du jib borom du sax yu kooku aussi c'était une autre parenthèse mais ñëwaat ci siti bi siti mooy indi problème dermatologique nga gis ay xasan nga hmm. gis ay ër boo fajul siti nooy siti bi booy faj affaire po il faut d'abord nga faj ci biir tët bi sinon boo fajee ci kaw garabam am na boobu tamit trente mille par exemple mais damay naan fajal siti bi ba pare nga doog a faj ci kaw même pied d'athlète li tubaab ni ko tuddee siti moo koy indi hmm. même ñi ngay gis ñu chauve siti la délettre sax am karaw hmm. siti day xasanloo bët mun na dem ba jox la cataracte siti day tàngaloo yaram est-ce que xam nga man j'ai reçu un message descend d'un patient qui est buy tëdd guddi il faut mu jël xawma glace xaw ma nu mu ko waxee noonu wala tooyal kii pour mu sedd tuuti il n'arrive pas à dormir mhm. yooyu dama sax benn rajo boo xamante ne tibia bi da gis dafa dafa dafa am inflammation ci biir mm. tubaab mënuñ ci dara même discopathie dégénérative mooy c'est-à-dire ndigg bi disque yi mm-hmm. am problème di xoosu siti moo koy indi siti mooy indi arthrose cervicale moo tax yëpp nuñ ko faj boo mënul faj alpha nooy fajee bêta cest à boo mënul faj li indi benn affaire noo koy faje am na ñuy foog ne siti mooy indi hémorroïde dinañ ci ñëw comme nee nga trois points la def développé parce que ñëwee ci affaire biir bi naa la wax luy indi hémorroïde siti mooy indi éjaculation précoce moo tax munoo dem ci tubaab mu ba muy jox la benn garab boo xamante ne di nga ciy wér définitivement walla ngóor a ñu faj la ngóor a définitivement amut xanaa nga jël nag seen aphrodisiaque yi naan nekk góor benn guddi wala jël aphrodisiaque def rapport une heure de la neexee mun naa sax du fi tur bi mais je suis pas là pour le faire leur commerce comprendre nga. Mm-hmm. bokkul nag ak lii indi rétrécissement sexuel mais siti moo indi éjaculation précoce ak ñàkk appétit sexuel loolu yëpp siti moo ko indi mm-hmm. siti ko ko am du lekk gerte te da lay bëggaloo gerte du lekk maafe gerte du lekk jën doo lekk xorom guddi même tension yi ngay gis mhm. cardiovasculaire yii yëpp siti la boo ko fajul doo wér même jabet boo ko amee bu yeboo ma jox la quatre mois de traitement jabet doo wér tànk yaa ngi am siti il faut nga faj siti bi hépatite B bi may faj sax boo amee siti doo wér ça veut dire bi mooy déclencher loolu yëpp sa waaw sa à dire pas mooy déclenché mais xam nga booy faj dara il faut quand même deret bi sedd. d'accord deret bi c'est important ci ne dafa am lu muy lu muy lu muy lu muy lu muy dindi comme poison mais day day raxasaale yaram bi. maanaam kenn du yàq ci. moom mooy huile bi comme moteur bi il faut moom huile. Mm-hmm, mm-hmm. pourtant l'huile c'est pas le moteur mais il faut nga koy vidange. léegi nag différence huile yi ni ñu amee noonu ngay xoolee siti bi est-ce que war nga ko def traitement de trois semaines une fois ou bien ndax da ko war a renouveler am na ñoo xamante ne bu demee ba seen yaram bi tâche yi bëri heure yi ba ñuy wokkatu rek muy nekk ay góom mënoo ñëw rek ne par exemple benn traitement siti dina la faj déedéet da ngay def siti bi deux ou trois fois trente minutes après nga jël xasan heure bi wa ila premier traitement city nga def ko d' abord deuxième booy def city nga nga boole ko ak xasan heure yooyu yëpp da nga koy def waaw mhm.